maa ngi wax ci turu sëñ Mountakha Kane mi nga xamante ne nii dafa engagé wu pour def politique euh, bien vrai que comme ni ko Ndeye Fatou waxee mu nekk nit ku ñu xamoon ci sociale mu dëkk Daaru Minam nekk tamit euh, taalibe Serigne Mountakha Bassirou yàgg dimbali euh, néew gi doole yi comme niñ ko waxee ñu yàgg ko xam aussi ci wetu Serigne bi ay bëgg-bëggi Serigne bi mu ci daan taxaw di ci def kem kàttanam mu xamante aussi ak président Macky Sall mii xam bëgg gu mu bëgg Serigne Mountakha nga xam ne comme ni mu ko waxee ci discours am lépp lu Serigne bi mos euh, sumb président de la république dugal na ci loxoom président de la république musul sàggane benn yoon déglu Serigne bi saa su ne mu ngi koy déglu def ko baayam def ko muy léppam kon Mountakha am na droit ki def noonu papaam mu engagé wu pour jàppale ko ci politique. loolu mooy li nga xamante ne nii moom la fas yéene def fas yéene aussi ànd ci ak ñu mel na ñoom day faatu ñi nga xam ne ay ndaw lañ ne ci dëkk bi di yëngu ci politique euh, di jàppale ñi nga xamante ne ni ñoom ñoom mooy ñooy seen waa askan lu ñu am aussi euh, yóbbu ko ci seen waa gox kon loolu la mun taxaa fas yéene loolu law ba président de la république man fee am ndam. est-ce que jàppoo yeneen leader politique yi mu fi nekk loolu lu yàgg. Euh, que japp nañu yag nañu japp le président Macky Sall te musul am résultat bu positif au niveau des départements euh tay Muntaha ñew est ce que jàppoon na ñooñu duñ ko xatal non duñ ko xatal parce que Muntaha aussi il est ouvert dafa ubéku té dafa fasiyéné aussi soldat lam dem ci leader yi nga xam ñu ngi fi won di japp le président de la république kenn ku ci né dina dem ci yow séti la waxtaan ak yow nek ci sa ginnaw parce que mom day dor té aussi non seulement mi ngi dogu commencer mais aussi nekul homme politique deug deug nit la koo xam ne nii bien vrai mi ngi doon def lu baax waaye mu ngi doog ko dugg ci politique kon dafa tàllal loxo ñëpp pour ànd ak ñoom nekk ci seen ginnaaw ci ni mu ko waxee mais fas yéene wut a jiitu dafa fas yéene ne ci seen ginnaaw waaye nag lépp loo xam ne gis na ko ne day defar président de la république tamit dina ca nem incha allahu rabbi ndax ndax xeex bi eh, dafa war a nekk day nekk wax wa ila sa mbokki jullit yi yéen ñëpp maa ngi leen nuyu seen tur ak sant di am kontaante ak euh ci fekk ci nga xamanteni ci serigne sëriñ Kan fekk ci nañu fi ci ni ci dar minam nga xamanteni ci ci buntu kërëm la euh, ci biir koñam la ci biir kërëm la ndax yalla dafa dogal euh, ñu yëngu ci politique buñ jógee euh, di jappalé président Macky Sall ndax dara ñoruñu lu dul moom mu gagné parce que mom rek moo ñor mu fekk ñu nak ci liggéey ci yoon mu woñu ñu taf ci wetam mu xamal mané fis ma euh fils dar minam yo la fi samp dama bëgg nga nek sama leader ndax gis na ni nga yëngo ci koñ bi ma fas yéene nag ànd ak moom liggéey bi di ci woo waa daar Daaru Minam yëpp képp koo xamante ni si yaakaar nga Serigne Mountakha Bassirou rek ñu ngi lay woo nga ñoo jàppale Serigne Mountakha Kane ci liggéey bi nga xamante ne si soobu na ko ci dimbale président Macky Sall pour mu gañe premier tour.